la coordonnatrice l'infatigable Seydou Ndiéguène di ko nuyu di ko sargal waaye di ko félicité di ko encouragé taxawaayam ci Thiès man day madame la ministre xam naa ko bu baax kaay boo woowee Thiès damay wax Thiès ay tàmbalee fa lay terminé jigéenu Thiès rek damay wax waaye loolu nag war na la parce que fi nga taxaw nag Thiès nag seen maam ba léegi nag ci loolu ñu ngi ko kon boo ko doxee loolu kenn du leen tax suñu la ñu wóor mënoon naan toutes les responsables femmes du département de Thiès bàyyi wu ma Thiès dinañ félicité baax dinañ encouragé seen taxawaay ci Thiès seen taxawaay ci askan wi. waaye seen taxawaay ci kanam président de la République son excellence Macky Sall ñun nag ñoom ci jigéen ñi kàddu yooyu dama koy bàyyi parce que monsieur le ministre Ousmane su waxee sax amatuma si kàddu parce que monsieur le ministre ñëpp jotaay waaye nag boo président dafay ma jigéenu parti bi fekk bi ay jàmbaaru parti président Macky Sall damay war a sargal ñoom leen sama tur waaye suñu jigéenu Sénégal yëpp nag di leen félicité di leen encouragé di wax ne ñun day suñu yaakaar nag ci réew mi jigéen ña ko yor nga nekk ci nag un levier essentiel ci réew développement réew mi waaye aussi politique bi ngeen di ay jàmbaar nag nekk ci base bi liggéey nee naa son excellence monsieur le président boo koy gis jigéen ñu baax ñu taxaw ñu ne bëgg di nga dimbale dugal ci au point plan Sénégal jigéen ñëpp la foog pare ngeen defal benn nguus lañ ko defal benn président nguus lañ ko defal président nag defe naa jàppale ko dafa yomb ci réew mi waxuñu ne ci askan wi waaye ñun ñi nga xam ne lañ ci famille yi ñi nga xam ne socle de la famille ñoom jigéen ñi président def na jàppale ci famille yu bari waaye bi si biir nag moo jàmm jàmm laa koy ak ñoo soxla jàmm ñoom jigéen ñi ndax nag bu ñu amul jàmm dañu sonn suñu njaboot sonn te coono boobu nag yàlla mënuñu ko tàmmee parce que président de la République son excellence bu woote jàmm ci réew mi ci yar bi ci teggin ci fonk diine fonk askan bi defal leen le président benn président mos a defal si loolu kooku mooy son excellence monsieur le président de la République ak yàlla ma jàppale. monsieur le président kooku jigéen ñi au cœur de son programme de développement ne man jigéen ñi rek laay waxal ak xale yi ak famille yi xanaa ko wax loolu fi ak Sénégal yëpp parce que moo ne jigéen ba xale ba famille def naa jàppale nañu ak jàppale na askanu Sénégal monsieur le président monsieur le émergence def ci nag suñu koy ñu jugee waaye jigéen ñi nag. autonomisation de la femme financement yi bari lool appui yi bari lool social yi bari lool la ci président la dama naan ko président yaay l'homme au grand projet sociaux du Sénégal yéen social Sénégal benn président mosu ko def jàppale askan wi parce que la yor mooy askan wi yokk ñu jëm kanam seen yenn ak amélioré mais def ci ay jéego am am solo xam naa conférence nag bu yàggee def daal bëri politique ñu ci waaye damay jàng ay kàddu rek parce que nag dage def ma wóorul te dina yombul waaye yenn saa yi ay message yoo xam ne nag ñi ñoo moom kër yi ñoo moom doom ñoo moom kër ñoo moom ñoo moom xale yi doom yi mun ñoo tënk ndax ñoo leen jur te bu ñu yokkoon nag xale yi yokku te président nag li mu def ci réew mi ci xale yi def naa suñu employé de la de la jeunesse li mu def def naa suñu yaay yëg nañ ko suñu doom itam xam na ne président moom rek moo jàppale jeunesse Sénégal kon ñu dellu suñu gën a yokku suñu ay doom góor comme ñoo xam ne ñoom ci réew mi jëm ak ñu soxla ci réew mi dañoo bëgg suñu réew développé dañoo bëgg def émergence te gaa Sénégal teg ko nag sur la voie de l' émergence dañ ko jàppale président de la République kooku mooy président bi nga xam ne dañ ko jàppale réew mi jëm kanam kon dama daanu sama kàddu foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di félicité ñëpp nag di félicité waat na tous les responsables du département de Thiès góor ak jigéen mag ak ndaw seen taxawaay seen jàppale ci président parce que wóor na ma Thiès moom di fi duggee rek suñu xel dafay dal parce que président bàyyi na waaye responsable itam à la base jàppale ñu am ñoo la jàppale particulièrement jigéen ñi kon monsieur le ministre daal mooy Sénégal loolu indi jigéen ñi nga xam ne nekk dans tout le Sénégal ñu di jàppale président de la République en tant que président national des femmes waaw en tant que ministre de la femme en tant que aussi doomu région de Thiès parce que département Joal laa def nga dëkk Dakar kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di félicité ñëpp di ñaan yàlla suñu borom ma ànd si avec très forte délégation ànd ak madame honorable député Néné Marième Kane ba Matam mu ànd guddi si ma ma ànd sama waa commune ànd ak Adja Oumou Ndiaye ay de Samb ànd ak Adama Diop ñoom ñoo ñu ànd ak man délégation bi tey kontaan dafa bari waaye bëggoon nañu waa Dakar yëpp ñu ne parce que man la présidente bu jigéen lu ñu woote bu ñëw lu ñu nekk lu ne coow nañu kon bu woote dañ ko ko doon kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla suñu yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla may président de la république gën a ne doon yàlla ko yàlla may ndam lu ko ci réew mi ci parce que Seydina Mouhamad barke weeru koor bu tedd bi ñu koy ñaan ci àll ko defal Sénégal jàmm rek moo fi def may nuyu le ministre d'État le coordonnateur départemental docteur Augustin di la jox sa wàccuwaay di la wax dalal ak jàmm fii ci conférence directoire départemental des femmes di nuyu le président Abdou Mbow di la jox tamit nuyoo président assemblée nationale ndax suñu invité yi la bokkoon xam naa ne dafa xat di nuyu le doyen Mor di nuyu tamit ñu xarit suñu tonton Ousseynou Niass nga xam ne moo àndandoog ñun ci organisation bi depuis fan yi yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm di remercier femmes yi ñu àndal yëpp ak maanaam sëy na bu njegeen vraiment taxawaay yi rafet na mën naa jaar ku ci nekk sa tur waaye xëy na temps bi moo ñu ko dul may monsieur le ministre d'État tey dañ lay firndeel leen di la seedeel di la wax ne président Abdou mbaw ku ñu jàppale la ñun jigéen ñi ndax boo gisee tey jii ñu am fit pour taxawal lii xëy na moom moo ñu puus moo ñu jàppale moo ñu topp li ñu dooleel ba tey ñu taxawal lu mel nii kon boo toogee monsieur le ministre d'État dinañ la ko àgge ndax yaay suñu kilifa ñun ñëpp di la wax ne Abdou Mbow vraiment ñun amuñu fayam ñu ngi koy bàyyeeg suñu borom moom mi man fay mu fayal ñu ko monsieur le ministre loolu jàllee ñun jigéen ñi nag ku ne xam na ne ci weeru koor lañ nekk te ku wax koor wax solidarité bii di onzième édition bi yàlla dogal man mii ma koy coordonné bii passé suñu mag Mboru Dieng coordonné ko beneen bi Seynabou Dieng coordonné ko bii nii tey man vraiment lépp luñ ci amee ak ndimbal di ngeen ñi ci jox yëpp dañ koy dajalewaat dugalaat ko ci askan bi tax ku ne xam na ne son excellence moo ñu jiitu ci social te mi ngi koy def mais am na gox ak goxaat yoo xamante ne munu faa àgg ñun ñii di ay ndawam ñu volontaire pour àggale ba fa kon nag tey jii lii ñu taxawal nii lii ngeen ñu ci jàppale lépp ci askan boobu lay jëm joxuñu ko suñu bopp seggalewuñ ko suñu ay militants néew ju doole yi lañ koy jox monsieur le ministre d'État su loolu jàllee tamit ñu ngi lay yóbbante ci son excellence xamal ko ne ko ñun jigéenu Thiès yi pare nañu takku nañu pour porter candidature am ci deuxième quinquennat bi ñu ngi lay yóbbante ci son excellence ne ko ñun soxla wuñu ku ñu yekkale soxla wuñu ku ñu batale kenn ñun moom rek la ñuy ñun moom moo ñu doy ndax fi mu ñu jëlee fi mu ñu indee ko gën. monsieur le ministre d'État waxal ñu son excellence ne ko waa Thiès Kaay kontaan nañu ci moom ci chemin de fer bii muy waaj a relancer ne ko kontaan nañ ci moom ci conseil des ministres décentralisé bii mu fi def alal ji mu fi dugal ak chantier yi mu fi sumb yëpp kontaan nañ ci moom ak xëy yu ndaw yi gis nañ lépp waaye lenn dafa am nag démb dafa am suñu dëkkandoo bu nekk fii Thiès. ñu bokkandoo ak moom coalition bi. waaw waaw président Macky Sall lépp lu ñu warloo ak moom def na ko. ñu ñii di ay njabootam tamit lépp lu ñu warloo ak moom def nañu ko. ñu toog mu toog président Macky Sall ne ko Idrissa dénk naa la région de Thiès àndal ak ñoom nga liggéey ñu nit ñu àndal ak moom liggéey awuñu lenn luñ ciy rëcc waaye démb dañ ko dégg nag mu génn def déclaration bu am solo ndax nee na dafay dem ci élection 2024 yi déclaré na candidature am. kon ça veut dire que ni moom génn na boppam bennoo mm-hmm. kon ça veut dire que du ñun ñoo ko xatal kon ça veut dire du njabootu président Macky Sall moo ko génne mm-hmm. loolu day firndeel ne ne du président Macky Sall moo ko génne mm-hmm. kon moom moo wax àdduna bi yëpp dégg ko ne dafa génn pour dem wuti baatu askan bi kon nag loolu nag logique dafay wax lenn jox nañ ko mu nekk président conseil économique social et environnemental kon boobu nag pour mu mën a battre campagne am ak li muy wax pour mu am cohérence ñu ngi koy ñaan mu delloo ñu loolu ndax mu mën a am kon nag loolu monsieur le ministre ñun dañoo ñun jigéen ñi ñoo tax pour porter combat boobu ndax ñun lépp lu ñu warloo woon ak moom def na ko def nañ ko kon nag tey mu déclaré candidature am kon nag logique dafay laaj tamit li ko président Macky Sall dénkoon bi la ko comme léegi adversaire am la ñu leen di sant di leen gërëm merci beaucoup monsieur le ministre d'État directeur de cabinet politique de son excellence le président de la République du Sénégal, honorable député Abdou Mbow, Serigne Cheikh Abdou, Serigne Cheikh Serigne njabootu euh, Serigne Modou Ablaye Fall Ndar ak Mame Cheikh Ibra Fall ñu ngi leen di nuyu di nuyu responsable yu mag yépp yi fi nekk sama papa Mame Tomor Niang Por Dia Mamadou Ndiaye Sagno bi jógee ci ñun démb ak euh, ak euh, Ndeye Ousseynou Niass sunu permanent bi xam ne moo du du jóg ci ñun gunge wala nuyu le directeur euh, de la le PCA de de la NONAS damay wax toujours directeur général Siré Dia nday daba seen délégation bi ñu ngi leen di nuyu di nuyu responsable yépp yi ñu gunge ñu ci bés bi ñu ngi cité le DG Abdoulaye Dieye di citer le DG Maodo Malick Mbaye le PCA Siré Dia je viens de le dire tout de suite ak responsable yëpp de le ministre Pape Amadou Ndiaye li ngi leen di sant di leen gërëm cant bi monsieur le ministre ñëwati nañu lu ñu naan ku ko mën ni nga koy defe ñun daaw dañoo dem Koungheul dans la département ren ñu ñëw commune te gis ngeen ni ñu ko defee waat ku ko mën nii nga koy defee commune monsieur le pour dire que ñun femmes bu vous ndax nag dëkk bi toll na koo xam ni lu sommes à la croisée des chemins dama bëgg dalal seen xel dalal xelu son excellence le président de la république ne ko jigéenu Thiès taxaw nañu su nee weex nañu ni ko tàll su dee ñuul nañu ni ko fukk ne ko takku nañu taxaw na xaw ma ku ci woon du laa ne jigéenu Thiès fii jubóo nañu ànd nañu ndax soo gisee directoire départemental damay jëm si jeunesse bi lu ko wut bi mooy jigéen ñi dañoo jékki-jékki rek toog ne amatul kër Abdou amul kër Sénégal amul kër Seyda ba ñun ñëpp nañu ànd rek pour animer le parti te saa yi bu nekk chaque année ak euh, dinañ am conférence religieuse ndax weeru koor dafa doon weer yu ñu gën bu doon weeru ndimbal ak yërmande ñu ko ciy def sans compter l' animation continue du parti. say jigéen nag ñu ngi attelé wu fi mu toll nii ci montage comité yi donc su su te nee defee tuut su neexee yàlla ak diir tuuti dinañu ñëw jox la sunu lim sunu takk li ñu am ci montage comité yi. te jigéen ñi kenn demul ñu des te la solution du Sénégal viendra par les femmes ñun ñii dinañu voté ñoo jur ni ci kër yi wëlbatiku ñun vote fidèle lañu am moo tax ñun ñu travaillons travail de terrain bi ñu koy def suñu mbokku jigéen ñii lañ ko def yi janoog ñoom tey ñu ciy sant son excellence le président de la république ndax li ko soxna may waxee tout à l'heure mooy ku tànkam eggu rek ñun ñu ay ñoñam suñu tànk mën fa yegg ba suñu dërëm ak ak ndiir yi ñu am ñu dajale ko pepp gi ñu am ñu dajale ko jël ko jox ko askan wi donc ñu leen ci sant di ci gërëm mais nag ñun dañoo am koo xam ni nag liñ naan lagal féete day xañu wërsëg ñun fi ñuy dem dañ koo ñime ndax man su ma ko toogee man sëy na bu jigéen mii taxaw ci ko wax nag nit ñi war nañ koy mën a bàyyi xel ndax Abdou Mbow mii monsieur le ministre d'État ñu ngi lay kalaamee ak moom de ah. li ma la war ci démb premier ministre ne ko su ñëpp defoon ni ñii ñeen def ku nekk di wooteel sa wooteel bopp Abdou Mbow dafa boole jigéenu Thiès yëpp saa yi bu ñu xëyee moo ci xëyandoo di ci gontandoo ba euh, réussite exceptionnelle bi ñu ñu ko koy sant ñu ko gërëm. te dama ne premier ministre ci démb mu naan ko su ma leneen du ñu wuti lenn fenn fii la ñuy toog tëj na ko def te chaque jour lu ñu def moo ci gën monsieur le ministre vous êtes le directeur monsieur le directeur politique de cabinet politique de son excellence président daf ne ko l'appel mooy jigéenu Thiès mooy am na loo xam ni du ñu ne duñ ko tuddee exigence mais am na loo xam ne ñun jigéenu Thiès ñoo ko soxla parce que am na loo xam ne su suqalikoo moom jigéenu Thiès suqal ndax suñu dara la dawul bés bu nekk moo dëgg si ju ñu jàppale même suñu amul organisation bi baax si jigéen ñi lool monsieur le ministre neel président de la république ne ko jigéenu Thiès yépp à l'unanimité sant nañu gërëm nañu Abdou Mbow ma bëgg a ñëw nag ci volet boo xam ni weerum koor gi gaaw duma ci bëggoon a xuus waane actuel dafa amoon comme ñu dénkoon dama dégg ñu naan mburu mi ak soow mi dafa forox waane mburu mi ak soow mi monsieur le def euh, ministre d'état depuis le départ la day euh, euh, def du forox dafa xaje woon la mayonnaise n'a pas pris wëlbatiku booba ba léegi nanguwuñu ay ñoñam nanguwuñu ñun 7 pour cent la ñu dee départ en 2007 ñëw ba deux mille dix neuf ñu am quarante deux pour cent xam nga ni jootu booba jigéenu Cees yi néewuñu yàgg si jigéen nañ seen bopp te su ñu bàyyi woon ak ñu dem ñun rek xam ne tey amoon nañu lu ñu bëggoon tey ci Cees am nee ko bu mburoog soow mi lu ñu am moo ñu ko lu ñu ñàkk moo ñu ko xañ Cees monsieur le ministre nee ko jigéenu Cees ni ça fait l'appel de Cees lu ñu ñàkk moo ñu ko xañ biir Cees ne ko nag ñun lëngoo dafa neex waaye koo bàyyi mbaga mu départ mu mu dem ak yóbbante lañ la yóbbal si son excellence le président de la république ne ko mu bàyyeeti ay ñoñam xel nous avons été les di du sacrifice à Thiès donc am na ci loo xam ne nag dootuñu ko nangu ndax ñu suñu président bi duñ ko aale duñ ko tayle te duñ ko leble suñu mbir la donc li ci li ma ciy toftal mooy ngeen jéggal ma tuuti nag si wax ju sakaade ji ndax bu yàlla seedane ni ba biig maa ngi hôpital dama feebar lii la ñu mënul def mënuma bañ a taxaw mais yàlla seede na ni da wéruma euh, monsieur le ministre d'État ñun ñu ngi sant suñu jigéenu directoire bi fukki at dañ ñoo kaa jox ba daaw ma ni leen nañu parfois démocratie dafa war a commencer si ñun nañuy def une tournante saa yi bu organisation war a am ñu jox ko kenn daaw ñu def ko dans le département jox ko mburu ren ñu def ko dans la commune jox ko may mun a seen mu coordonné ko avec commission yëpp dañoo marché comme il se doit coo amul xiiroo amul ŋaayoo amul li ñu bëgg mooy monsieur le ministre président dañoo jëm deux mille vingt neuf nekk ko ñun pare nañu takk nañu fu ñu euh, lu leen ko jaral ñu jarañu ko te nee ko suñu dëkk bii nag foofu laay daanelee du ñu jël suñu dëkk bi jël ak xale boo xam ne dafa yaradiku amee pétrole ñun ñu euh, amee almet ñu jëm si pétrole di ko wax mu koy taal allahumma salli ala sayyidina muhammad mooy kilifa jotaay bi muy le ministre d'État directeur de cabinet politique le maire de Fandène Augustin Tine nekk coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar fii ci Thiès président boole ko ak ñun boobaak léegi mu yor njaboot gi sonnul tàyyiwul monsieur le ministre d'État ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax suñu nijaay Mor Niang bi nga xam ne suñu kilifa la ñëpp tonton Mor lañ koy wax ndax sagesse di nuyu bu baax la permanent muy suñu nijaay Ousseynou Niang xam naa ne jigéen yaa ngi ree ndax sonal nañ ko trop sonal nañ ko guddi sonal nañ ko bëccëg nelawul taalal clim bi defaral chaise bi tonton indil nangam donc vraiment ñi ngi koy sant di ko gërëm di nuyu bu baax Salif Diapor bi nga xam ne aussi suñu grand frère la nekk responsable bu mag di nuyu suñu rakk yi nga xam ne aussi ay jàmbaar lañ muy ñoom Ibrahima Diouf di ñoom Guèye Mbaye di nuyu responsable mun naa leen lim benn par benn mais ñu xam rek ne ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñi nga xam ne nekk ñu di ay kilifa muy le ministre Pape Amadou Ndiaye am ngànt le DG Siré Dia nekk président conseil départemental suñu frère Ablaye Dieye Sala Sylla ñoom Maodo Malick Faye ñoom Demba Diouf parce que Demba Diouf ñëwul tey demee daaw yi mais dafa am examen à politique mi ngi politique yi depuis dix ans parce que professeur la dafa dellu jàngalewaat université te tey dafa amoon examen avec ses professeurs moo tax ñëw avec ses euh, élèves et étudiants moo tax ba léegi boobaak léegi ñu ngi jokkoo mi ngi à l'université moom moo tax teewul donc ñu nuyu tous les responsables là yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te ñu xam ne encore une fois de plus tey la ñu xam ne wala gën a gën ne tey la ñu war a gën a nekk ben ndax président Macky Sall li nga xam ne moom la am ci dëkk bi yàgg naa koo wax su ko xeebee perte la ndax ñooñu ñoo ko fiy taxawal di ko guddee di ko bëccëgal war nañu tey gën a booloo nekk benn déwén dañuy dèjà pour que fi ñu jëm mën a yomb di nuyu nag jigéen ñi nga xam ne ñoo organisé tey tàmbali ci ki nga xam ne moo coordonné muy honorable député Maymouna Sène sama collègue la sama jigéen la sama xarit la souvent je dis may mun a bokk na ci les premières jeunes filles yi gëm Macky bi ci def boobaak léegi bàyyi ba tey ñëpp xam ko ci dalam ci yaroom ci teeyam ci nit koo xamante nii lépp li nga xamante nii dafay indi histoire daf koy mooy des fois dañ naan sax may mën a tàppe dafa ragal loolu li muy wund rek mooy ñu ci jàmm parce que nit ko xam ne yaa ngi politique di xeex ba tey yàlla def la député nga nekk à ton deuxième mandat doo mais su fekkee ne dem nañ ba lay wax loolu te parce que nit nga koo xamante ne nii yaa ngi moytu sa mat nga kilifa xale la waaye tey am na taxawaay boo xamante ni taxawaay boo am solo di remercier équipe bi ànd ak moom yëpp di ci fekkee soxna xëy na bu jege bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne comme ni ma ko wax suñu jigéen la souvent li ma koy wax en public laa koy wax en privé ma ne leen tey bu waxal leen ko lu ne mais au moins mu ngi bàyyi xam nga man je suis quelqu'un de trop sectaire tey bu ba mu jàppee Macky Sall ba tey bàyyi wu ak loo ko mënti waxal la ci àdduna et loolu c'est une qualité loyauté dafa am solo te moom am na loyauté am na constance lépp loo xam ne am na ko ci président lu mu mérite maa ngi lay jaar Euh, di nuyu jigéen ñi ci nekk ñëpp parce que mën naa rek di leen nuyu benn par benn mais xam naa ne samay bañ ñu leen tudd ma nangam nangam tudd naa leen leen ñëpp parce que mën naa commencé sama ndeyjoor ñoom Oumou dem na li ñoom Pampé ñoom Mambay ñoom Maguette ñoom donc mën naa lim daal lépp mais en tout cas jàppale ne daal man am naa mbégte ci yéen li tax ma am mbégte ci yéen mooy. waxoon ngeen ne di ngeen organiser te organiser lii li ma leen waxoon sama kër laa leen wax nit soo nekkee ci dara da ngay am fulla ak fayda bi sa bopp soo gëmee sa bopp day def parce que bi ngeen di mëbët lii li nga xam ne jàppoon ngeen ne war na mën a biti seen seen bopp bi ngeen demee xam ngeen ne lu yomb te loolu nag dama ciy remercier ay nit ñoo xam ne il faut que ñu parce que nit aussi bu la jàppale foo nga jàppale Monsieur le ministre d'État, je voudrais ici, devant tout le monde, remercier le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Pas pour aujourd'hui, parce que tey mën naa ne c'est la personne bu gën a jàpp ci mbir mi tey. et commencé na ko tey à chaque fois que les femmes de Thiès te pourtant dëkk bi wutu fi militant nekk ci conseil municipal am benn responsabilité. la preuve musul ñëw sax ba or ñëw ci benn organisation musul fay kenn xamul. mais à chaque fois quand les femmes ont besoin d'elle danaan ma du ma leen recevoir mu leen recevoir nii nii mais à chaque fois jàpp naa li mu leen jox kenn du leen ko te loolu nag monsieur le ministre ça il faut qu'on le dise ici nit ñi xam ko parce que nit soo nekkee ci wetu kilifa di ko jàppale baax na bu nit ñi ñëwee ñu ne kii kat def na nii def na nii def na nii c'est important di remercier bu baax aussi le premier ministre Amadou Ba parce que quand je l'ai eu wax ko dafa recevoir jigéen jàppale leen jox leen enveloppe ba pare jox leen deux marques am nga loolu aussi taxawaay bu am solo la Abdoulaye Sow Abdoulaye Seyni Sow jàpp na ci Ali Mbuy jàpp na ci parce que jaar na ci maire parce que comme la ma la yow amul benn njëriñ mais bii moom ci am na njëriñ ndax jàpp nañ ci jigéen ñi au moins cette organisation. loolu dafa am solo parce que ñii amuñu lu dul ñoom te yéen it amu leen lu dul ñun mais loolu lépp nag suñ ko mënee kenn moo ñu dooleel ci loolu muy le ministre d'état officiel parce que man dama bëgg ngeen xam ne lépp lu ma mën ci kaw ba ci suuf. Augustin moo tax Augustin def na ma comme moromam Augustin jàpp na ma comme doomam jàpp na ma comme jarbaatam jàpp na ma comme leneen ñi ngi naan ma jàpp na ci bés bi du ma ko remercier parce que wareefam la def parce que Augustin lii ñu def ni liñ naan tant que borom bi ñuy li ñuy def nii yëpp pour yow la ñu jotaat donc li ñu war mooy remercier ñeneen bi parce que moom du ma wax ne jàpp na lu ñu parce que koo xam ne yaw lañuy ñuy defaral yaay jàpp yaay defar jàpp naa ne bu ñu ñëwee ñeneen lañu war a sant gërëm leen mais moom wax dëgg yàlla kilifa la ndax kilifa mooy lépp loo xamante ni sa njaboot da cee ne mu baax ak mu bon nga jàppale leen su bonee da ngeen woo ne leen kat lii ngeen def baaxul bëgg naa ngeen defee nangam dal na mën na déglu doomu aadama yi te am na njëriñ donc monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm di wax rek ne sànq jigéen ñi am na lu ñuy wax bu ñu demee ba ci biir peut-être ci fan yi dinañ ci mën a wax parce que dans la vie aussi nit looy def dafay am cohérence du ñu ci yokk ba ci bëri may mun a seen li mu wax dégg nañ ko te xalaatu ñëpp la jël wécc te ci kanam tuuti la xam naa ne suñu. demee ba ci kanam ci ay fan actualité politique bi foog ñu wax suñu xalaat parce que dama wax ne Thiès yi dañu fi nekk jugee 7 pour cent comme ni ko Seydou wax ba 41 pour cent ñun je l'ai dit à la télévision c'est pas pour xam kenn wala keneen mais résultat laa wax ak fee ñun bi ñu ñëwee ànd ak waa réew mi dañ ñoo gagné dama ñu àndee ñun kese ñoo gagné loolu mooy la réalité. parce que analyse il faut faire des analyses objectives le dafa am loo xam ne daf ñu ko digaloon ñu nekk tey nag am na lu xew et on se prononcera sur jigéen ñi li ñu wax dégg nañ ko et incha allah je pense que seen bopp du ngeen dem ñu des ginnaaw le moment venu on se prononcera pour li nga xamante ni moom la xalaat ci biir bi ñu wax maa ngi leen di sant di leen gërëm di jox le ministre d'État augustin bi parce que damay bañ gars yi ñëw fi mbaroole monsieur sant euh, bu baax suñu borom li ñu may daaw ñu nekkoon xombol ngeen def ko mu aw yoon bu baax a baax rafet ngeen wax ci solidarité et religion musulmane mbégte lañ ci amoon daaw mais ren je pense que vous avez battu le record de l'affluence yéen ñëpp ñëw ngeen ma nuyu bu baax honorable député président Abdou Mbow di un responsable engagé ñàkk ki ñaan am na solo ci doomu aadama di nuyu madame la coordonnatrice Seynabou Ndiéguène ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant jiite dafa metti mais on dit toujours que c'est possible honorable député Maïmouna Sène l'organisatrice du jour gëm naa ni vous avez réussi votre coup d'essai donc dañu lay ciy gërëm dañu lay ciy sant bu baax a baax dañu lay gën di encourager c'est un apprentissage et je suis sûr que ça ira donc dañ gërëm dañ lay di nuyu malgré son absence madame la ministre de la femme di nekk coordonnatrice su jigéenu APR bu Sénégal soxna Ndeye Saly Diop Dieng ngi koy nuyu di am mbégte ci teewaayam fii di nuyu tous les responsables du département de Thiès moo xam maire la moo xam DG ñëpp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di gërëm même ñi ñëwul yónnee nañu ay ndaw yaakaar naa loolu c'est un plus politique juboo ci mel ni ay mag ak rakk def ci dafa metti mais nag am nañu yaakaar ni mën na nekk parce que fi ñu jëm amul kenn ku bëgg dara ku dul président Macky Sall président Macky Sall mooy ñun engagement bi wax ngeen ko te am naa yaakaar ni waa Sénégal yëpp dégg ñu leen waa monde bi sax dégg nañu leen xam nañu ni vous êtes déterminés vous êtes engagés mais na leen weer ni nous serons toujours à vos côtés où nous pour la victoire en 2024 du ma wax ci yenn épiphénomène man du ma ci wax parce que dama ni engagement boo ko demee boo amee engagement doo xool droite di xool gauche tu regardes devant toi nga xam ni fii nga jëm nga taxaw ci pour am ci ndax coow li mën naa bari lool mais nag am naa yaakaar ni président Macky Sall li mu liggéey ci Sénégal ñun dootuñu xale fekk nañu mbind 1960 ba léegi li mu fi def gëm naa ni kenn defu donc bu dee ci def-def loolu moom waxee ñu ko xanaa leneen ngay wax mën naa def lu ko ëpp mais loolu nag am na ñu fi def depuis 60 ba 2012 mais defuñu ko ki nga xam ni liggéey na ñu gis ko. mu def lu rafet lu aw yoon li ñu gis ak li ñu gisu fii ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp d'accord nañu ni président Macky Sall dafa élever barre bi foo xam ni ku fa bëgg a àgg di nga sonn lool donc dañ koy ñaanal yàlla may ku wér may ku kattan mu xam ni jàmbaar ya mu amoon démb ñu ngi fi taxaw ba léegi. moo xam góor la moo xam jigéen tey nag góor yi yéen jël seen responsabilité ñu ànd ci ak yéen bu wér wér je pense que vous l'avez compris xam ngeen ni détermination bi ngeen àndaloon 2007 yàlla def am ñu ñëw fekk nañu ci 2008 ñu ñëw fekk ñu ci ba tey gëm naa ni engagement boobu ak détermination boobu buñ ci taxawee. victoire dinañu ko am saa yi ñu taxawee pour combat donc ngeen xam ni man personnellement am naa mbégte te dinaa rendre compte d'ailleurs je président la république ci engagement bi ngeen ci jël léegi parce que xam naa ni mi ngi koy déglu ku am dal la ku ñàkk caaxaan la xam na fi mu jëm te wóolu nañu ko te am nañ ci yaakaar donc Maymuna maa ngi lay gërëm ak ñëpp ñi nga xam ni yéen a coordonné cette journée bu am réussite bi parce que vous avez occupé tout l' espace amul coow amul ŋaayoo lépp ci jàmm parce que sans la paix on ne peut rien faire et c' est une journée de solidarité je pense que dañoo nekk ci le mois du Ramadan c' est un mois de pénitence c' un mois de pardon. c'est mois de solidarité, c'est un mois de piété, c'est un mois d'engagement et de partage donc euh, gëm naa ni suñu borom dinañu wàllu si ci lii dinañu jàppale bu baax a baax ba ñu am ci réussite maa ngi leen di gërëm di leen sant.